introduction wu dee maanaam muqaddimatu de sukuraat la bëgg a wax mu ne sax man du ma ko def waxuma la dee waaye nee na sax sukuraat sax moom dafa dul def ku sukuraatul xam nga doo dee parce que ñëppay sukuraat comme sëriñ bi dàq na ci boppam sukuraat nee na du sukuraat loolu tamit bañ demee ci alquran ñu gis dafa wuuteeg alquran yàlla wax na ci alquran mu ne walaw tara izi zalimuuna fi gamaraati almawti walmalaikatu baasitu aydihim axriju anfusakum imaamu tabari mu ne aaya bi yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na bis bi ngay gis tooñkat yi nekk ci sakuraatul mawt nekk ci sukuraatu dee malaaka yi naj téye seeni loxo yàlla borom bi subhanahu wa taala waxaat ci alquran mu ne wa jaat sakratul mawti bilxaqi dalika ma kunta minhu taxiid yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne sakaraatul mawti dafa ñëw nekk dëgg bu ñëwee rek mooy dee egsi na waaw bu ñëwee rek nga xam ni dee moom egsi na mu koy wax muhammad sallallahu alayhi wa yàlla waxaat ci alquran kala ida balagati taraaqi bu ñu demee ba nit ki sakaraatul mawti dikkal ko mooy jamono ba muy dee comme nga gis ni aay yëpp dafa saxal ni ku nekk day jaar ci sukuraat waaye sëriñ bi nee na moom lam tanxu nii muqaddamatul mawti nee na man sukuraat moom noonu man du jaar ci man sukuraatub dee beneen bi mooy yonent bi bi nga xam ni moom moo gën ñëpp moo gën a xam ñëpp moom yonent bi salallahu alayhi wa moo gën sëriñ bii di wax anas ibnu malik ci li nga xam ne buxaari yi da koo génne yonent bi salaa sallam ba muy ci sakaraatul mawti anas nii la ko ab saxaabi la bu dëkkoon kër yonent bi mu ne kaana bayna yadayhi rakwa dafa yoroon ab buteelu ndox wala ab ndab bu am ndox mu ne fiihaa maa dafa amoon ndox fa yudxilu yadayhi fil maa'i yonent bi ba muy sukuraat sallallahu alayhi wa sukuraatul mawti sukuraat dafa metti ci moom ba nga xam ni day jël ñaari loxoom dugal ko ci ndab di ko raay ci kanam gi muy wax moom yonente bi sallallahu mu ne laa ilaha illa allah inna lil mawti sakaraat moom wax mu ne laa ilaha illa mu ne deekat am na sukuraat mu ne deekat ndekete dëgg dëgg dee am na sukuraat allahuma salli wa sallim ala rasulillah yonent bi salaa sallam ba muy waaja faatu moom yonent bi salaa sallam ànd ak lu muy nekk yonent ànd ak lu muy nekk gën ci nit ak jinne ak fu ko yàlla teg nee na ba muy sukkuraat ab ndab lañ ko indil ci wetam muy jël loxoom di ko ci dugal di ko ci dugal di raay kanam mu ne fa ma zaalat xatta qubida wa maalat yadahu sallallahu wa sallam noonu la continuer di def ba malakul mawti jël ruwam loxo bi daal di tokki waaye sëriñ bi nee na moom du dee sax bay sukuraat moom nee na moom sukuraat sax du si jaar mu ne waqad mu waxaat moom sëriñ bi mu àggali mu ne waqad rafaatu bil baqaai sawti mu ne man de damaa yëkkati ci sama voix samay wax mu nekk luy des mu nekk luy des la chaque day des la chaque day des ku wax wax yoo xamante ni day toll nii waxam day des ala kulli xaal tey ba ci philosophie yi wala ba ci libéralisme yi ñoom nett ba tey seen wax day day des waaye est que day tekki ni la ñuy wax loolu dëgg la Darwin bi nga xam ne nee na nit ci golo la jóge ba tey waxam mu ngi des waaye est que day tekki ni wax jooju dafa dëppoog alxuraan ak sunna bokk comme wallahu almustaan comme ñu yem foofu loolu mooy jàngati ñaari baytu ci des de daanaka day fekk si yële rek comme euh, ñu jàpp ni wax yi ñu fi wax bu ñu delloo ci alquran ak sunna dafa wuute alquran ak sunna te ñoom dañ wax ni dañ leen di dee te xamuñu lu leen di dee lan la te dañuy dàq ci amuñu preuve ci alquran ak sunna yàlla day dee nit te luñ fi wax nag wax fa yàlla mu nekk lu wuuteeg alquran ak mu nekk lu leer naññ nañ naññ naññ naññ naññ naññ te ñaareel bi borom bi subhaanahu wa taala nee na fala tuzakku anfusakum bu leen tagg seen bopp te wax yi ñu fi gis tagg bopp la ñu yem fii ba xëy na suba wala gannaaw suba bu ñëwee ñu daal di àggali téere bi yëpp la ñuy jàngat incha allah allahu alam téere bi nag téere la boo xam ni lu tax ñu tànn ko ndax li ngay dégg yëpp comme niñ ko waxee diw mooy yàlla li ngay dégg ay ëppal ci yoon bi kilifa ci ñoom di ko wax léeg-léeg nga dégg ku ne léeg yàlla dégg ku ne diw moo sut yonente yi wala sëriñ bi du moromu malaaka yi moo raw malaaka yi moo leen sut wala sëriñ yi moo raw saxaaba yi wala yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne sëriñ bi taxaw ne ma romb leen dem ci sëriñ bi wala sëriñ bi du nit comme ni koy déggee wala man jarul may dem màkka su ma demee dëkk ba ca bawar rek doy na loolu yëpp ña koy wax fii lañ ko wekk ci téere bii lañ ko wekk téere bii lañ ko wekk loolu moom moo tax ñu ne dañ ko tànn ñun nag la mu wax ci téere bi loolu rek lañuy ñuy firi loolu rek la ñuy firi luñ ci dolli mooy dañ koy tontu solo alquran ak sunna leeral ko indi lu wër ci alquran ak sunna koo xam ne tamit gis na ni waxul loolu wala dañ koo sosal na ñëw rek nañu ni ngeen ko fiiree fii du nii nee la walla mu daal di ñuy tontu ci xam-xam amaa yenn yi moom duñ ko gëstu ku pare pour tontu ñu ci xam-xam rek bismillah cheikh bi moom muy wax mu continuer di wax ci ñaari page yi ñu wàccee mu ne tursi anil mawti baqaau llahi abqaani llahu li wajhi llahi mu ne borom bi fegal na ma aw daf ma fegal dee comme mu ngi ci logique bi moom du dee ci logique boobu la nekk ba tey mu ne moom du dee mu na ci man de comme boo xoolee lii da koo répété répété waat ko répété waat ko répété waat ko mooy moom du dee lu mu njëkk a wax fële ci bayti yee lam zaati jaalibu niiraani wala fu mu waxee bu ne ah, naxan nufuusa siwaaya maanaam dee jublu na bakkan yi ba mu des moom comme loolu lay ñëwaat rek di dëggal di firndeel comme ñenn ñi nga xam ne dañ koy layalee naan noo mbindam la wax loolu moom yaakaar naa ni ku gëstu woon bu ñu gëstoo bu baax mbind yi rek dinañ ko xam ndax dafa taakid da koo gën a dëgëral boo ko benn yoon de mais da koy gën a dëgëral da koy répété di ko répété te bayti yi jàll nu fuusa la wax mu leer muy ay bakkan te nee nañ leen ci arab amul kenn ku namm ay mbind wax bakkan loolu amul ci làkk arab loolu soo leen ko waxee rek mooy da ngeen di seen sëriñ déggul arab te mënul wax ndax amul kenn ku mun wax koo xam ni mën na wax waxam leer mu dégg arab bëgg wax samay mbind du dee mu utilise nafs nufuus déedéet loolu leeral lañ ko dars bi jàll mu koy dëgëral mu ne tursi anil mawti baqaullaahi abqaanillaahu li wajhillaahi dee moom yàlla daf ma ko fegal waaw fekk yàllaa ngi des daf ma ko fegal yàlla moo des loo ngir jëmmi yàlla ab abqaanillaahu li wajhillaahi mu ne kafaanil baaqil mamaata sarmada mu ne fexel na ma te tëyal na ma ab dee ba sax dàq ba sax dàq ba abadan sarmada kon lii leer ba tey mu ngi ci logique bu moom du dee mu ngi ci logique mu ngi ci logique boobu kafaanil baaqil mamaata sarmada fegal na ma aw dee du ba dee abadan naam mm-hmm. mu ne wabi baqaa'i yasurru ahmada ci des bi may des sax bañ a dee kii di muhammad ahmada moom lool da ciy bëgg da ciy da ciy kontaan da ciy kontaan lu njëkk mooy dàq bu mu dàq ni du dee ci bayt yi loolu leeral nañ ko ci dars bii passé dafa wuteeg alquran ak sunna te alquran la ñuy gëm weddi lu wuteeg alquran ak sunna yàlla nee na kullu nafsin zaiqatul mawti bépp bakkan day faatu amul kenn kuy des yàlla gën ko leeral mu ne aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada foo leen mënta nekk dee da leen di dab doonte da ngeen nekk ci ay pale yoo xam ne ci kaw asamaan lañ ko tabax yàlla waxaan ne kullu man alayha faan képp ku nekk ci kaw suuf da ngay faatu wa yabqa waju rabbika sa borom kese mooy des comme yàlla exception ci moom kese la ko def ni du dee comme cheikh bi ba léegi mu ngi ci logique bobu logique mom du dee mu ne wabi baqa'i yasurru ahmada te sama des baña a bobu yonent bi da kontan. la la yonent bi du kontaan ci lo xamne ne dafa wut ak alcorane sunna yonent bi du kontaan ci lu wut ak alcorane sunna ndax duma ma damay des ñeppay dee bam dess man yonent bi mu kontaan ci lool parce lool da wut ak alcorane sunna te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ni ñëpp dañuy de parce que loolu la alquran indi loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla mu ne afa in mitta fa humul xaalidun ndax yow yonente bi sallallahu alayhi boo faatoo ñoom dinañ des ndax yow boo faatoo est-ce que am na kuy des sa ginnaaw ku dul faatu lii alquran la alquran la bu leer